nuyu nañ leen di am mbégte bu baax a baax di waat seen émission l'invité de la rédaction tey nag ñu ci dalal Dame moom syndicaliste la moom mu jiite CUSEMS e authentique ñu fas yéene waxtaanee li nga xamante ne mooy actualité bi du gouvernement bees bi nga xamante ne Macky Sall teg na ko mu am ci loo xamante ne mooy surprise bi bett ñu bëri laay wax sax parce que mooy Idriss Seck mi ñuy dugal fële ca conseil économique social et environnemental ak tamit eh, mel ni Aly Ngouille Ndiaye Omar Youm ak eh, ñeneen ñoo xamante ne génnee nañ ci gouvernement bi Mamadou Matar Cissé eh, ñoo xamante ne daal yaakaaroon nañ ne bu dem di am du ñu dem loolu lépp dinañ ko waxtaanee ci biir émission bi ma koy dalal di ko bàyyi mu nuyu ak ñuy suivre daam mu nuyu la. maa ngi lay fay Moustapha di nuyu euh, sunu euh, auditeurs yeeg auditrices yeeg téléspectateurs yi ñuy seetaan yëpp di kontaan toujours ñëw jàkkaarloo ak yow ci sa émission nga xam ni vraiment poñ yu am solo ngay dugal thème yu intéressé sénégale yi ngay dugal. di ñaan rek liñ fi wax mu amal njariñ sénégalais yi. Mhm. gouvernement bi samp nañ ko démb d'abord ban lecture nga si njëkk am. lecture ma ci am de mooy euh, wax dëgg yàlla am naa ci euh, gàcce aw ma ci mbetteel nag ndaxte ñoom euh, lépp lu ñu def ñoom politiciens yi man du ñu ma bett mais wax dëgg yàlla am naa ci gàcce parce que même bu ñu ko doon def mën nañ ko defee neneen dul nii ndaxte sénégalais yi vraiment ni ñu daaneele gouvernement bi depuis àllarba bële nga xam ne presque toog nañ juróomi fan yaakaar bi dafa réyoon mm-hmm. waaye comme nañ koy waxee ci français la montagne a accouché d'une suuri maanaam euh, xaar bi rëyoon na lool waaye li xaar bi bari bari euh, France daal di xëddeen. ndax xaaroon nga ñu génne ñu ci mel ni Aly Ngouille Ndiaye Amadou Ba Oumar yum ay politiciens lañu xam nga président Macky Sall man li ma jàpp mooy ñooñu mu génne sax réeroowul ak ñoom parce que nguuru euh, Sénégal ñoom à tout tout instant mën a ñoo wut seen i pexe. ba ñooñu comme bëriwuñ lim bu ñuy wax ñeent la ñoo juróom lañ kooku mënta jaaxalu président mën naa sax peut-être kenn wala ñaar la ciy jàppanteel mais am na ci ñoom ñoo xam ne ci seen biir jàpp ma ne dañoo jàppanteeg président de la république donc yooyu yëpp ay pexe la pour mu layal li mu bëgg a def moom président Macky Sall parce que président Macky nag bu nit ñi fàtte ni politique rek lay def moom Idrissa Seck mii mu àndal tey te mu bett sénégalais yëpp rusloo leen moom Idrissa Seck mu wax na ci kanamu sénégalais yëpp ni. moom Macky Sall il a les défauts de Wade et aucune de ses qualités. Mhm. maanaam lépp lu Wade am ci lu baax moom Macky Sall amu ci dara waaye lépp luy defoo défaut Ablaye Wade rek mu ngi ci moom xam nga ko xas wu rëyee noonu ku ko def nit. Mhm. ak lim fi wax lépp moom Idrissa Seck wax ni man romb naa fuñ may joxe décret di ma nommer sama dama dese sama dund dund kenn dootuma nommer lenn conseiller municipal laa mën a doon bu Thiès. wala ma noon député wala ma doon euh, président de la république parce que man kenn dootuma fal ci ab décret waa ku wax loolu ak wax ju réy noonu taxaw ni ci sa programme da ngay supprimer institution yi amalul njëriñu réew mi te institution yooyu moom ci programme am mu lim ci au conseil des collectivités territoriales lim ci conseil économique social et environnemental wax ne moom bu faloo yooyu institution da koy nërmel parce que amalul njariñ réew mi waa président sa Seck moomu tey moo taxaw di ñu jéem a dox ci sunu xel naan ñu noo réew mi daa nekk ci jafe-jafe léegi loolu moo tax ma bëgg a dugg ci nguur gi pour pour jàppale waa réew mi kooku nag li ñuy wax rek mooy bettul kenn parce que sa Seck 2007 bi muy war sénégalais yi di def trahison aussi nii la demoon c'est-à-dire dafa dafa nekk. trahison nga ko jàppee. non est-ce que est-ce que moo bi tamit ëppul parce que tamit leader politique la am na droit bu ko neexee mu choisir camp. non xam nga suñuy wax trahison mooy gis nga nit ñi day am ku ci nekk foo xam fa lañ lay xaar leader da ngay sàmm sa kàddu te constance dafa am solo waxuma rigidité maanaam yam ci fenn foo xam ne doo fa bouger mukk waxuma loolu mais nga constant constant mooy nit ñi mënal. layal li ngay def teg ko ci lu xel mën a nangu nit ki nag boo fexee dangaa jël parti am benn orientation bu ñu la xamee nga toog ba ci yàgg di def yu mel noonu wax dëgg yàlla ay na yéwén nit ñi bu ñu xoolee dinañ xam ne yow mii ñi àndoon ak yow mën nañoo jàpp na yow trahir nga leen te boo dégloo waa réew mi ñu bari ci ñoom dañ naan nawloowu leen parce que même bi muy def lii ñi ko jege ñaar jege rek ñoom la ci waxtaanal mais duggul ci instance su réew mi suñuy parti nag loolu mën na cee am parce que suñuy parti ay nit a ko moom du ay parti démocratique même ñi dugal démocratique ci seen turu parti sax duñu ay parti démocratique moo tax man dama jàpp ni lii ñu def nii gouvernement pàccoo alalu réew mi la ci ñoo ñu ko séq ak intérêt France parce que waxtaanu sa Seck ak Macky Sall bii buñ ginnaaw bi ñu waxee ni ñaari hypothèse ma tudde ko équation à deux inconnus maanaam xamuñu bii moo mooy mooy li a am wala bee mooy li nar a am mais ñaar yi fokk ay na yéwén benn am ci mooy soit Idrissa Seck dafa dem waxtaan ak président Macky Sall parce que nee na dañoo def plusieurs tête à tête la wax ci français mooy gise nañ ay yooni yoon yoo xam dañoo toog waxtaan man ak moom lu bokkul ak dialogue national bi kon nag loolu mooy ñi ngi doon waxtaan ci suuf loolu dil la mënuñu koo tuddee neneen waa léegi dil booba lan lañ fa waxante est-ce que président Macky Sall lalul pexe ni Idrissa sekk mii comme moo doon sama numéro 2 ci élection yi moo toftal woon ci man ci nombre de voix léegi naa ko dugal ci nguur gi fexee gën koo nërmeel parce que sénégal yi bëgguñu transhumance bëgguñu koo xam ne gëmu li ngay wax bu ko defee ma won sénégal yi ni kii du dara bu ko defee bu ñu jàppantee bu génnee dootul doon dara dootu dootul mën a dootul mën a nekkati président de la république bu ko defee nag moom mu tànn ki ko neex wala moom mu ni day def troisième mandat jàpp naa ne boobu hypothèse bu wóor la beneen hypothèse bi nag mooy moom mu jàpp ni bu ñu demee ba troisième mandat bii mu bëgg mënatu la nekk mu jël Idriss Seck léegi teg ko parce que Idriss Seck moo gën a woyof ci moom Sonko wala ku mel ni sonk mooy opposition radicale bi donc man jàpp naa ne ñaari ban la ci xawma ban la ci mais gëm naa man ne pour le moment dans la tête du président de la république Macky Sall la Ouattara di def nee ca Côte d'Ivoire ala euh, Alpha Condé di ko def ca gine loolu la bëgg moom Macky sàll mais leeralagu ko bu demee ba mu xam ni mënta nekk nag mu jël solution de rechange bi muy Idrissa Seck donc man jàpp naa ni lii moom mënta génn ci seen combine bi ñu def te combine bii France moo nekk ci ginnaaw. mais man loolu foofu laa doon bëgg interpeller yoonu France du si yoonam. parce que ñaari ñaari président bi ak opposition bu ñu dajee di waxtaan loolu pour man France yoonam nekku ci. France day sous région bi yi fi am yépp France moo nekk ci ginnaaw boo jëlee la crise au Mali le problème du nord Mali nga xam ne moo tax Mali mënta am jàmm France moo ne fa rëcc diviser réew mi pour mën a. assouvir ses intérêts pour mën a contrôler les ressources du Mali pour mën a contrôler le le le pays sur le plan politique économique et social lii mooy dëgg loolu mu def France loolu lay def Burkina loolu lay def Côte d'Ivoire loolu lay def Sénégal loolu lay def Guinée moom lay def fépp France fépp moo ni fa rëjj kon nag waxuma la Sénégal mais sous région du yëpp France moo ko lëmbee am ay intérêt yu muy sauvegarder ba tax muy seet kan moo koy toogal ci biir réew ak ku koy toogal ca bee réew léegi nag moo tax lii di am bu leen ci génne France ku ci génne France mooy sa analyse da ngay lajj France dafa am intérêt ci kaawam gagné kaawam nag France amul amul choix ci na nekk sa Seck wala na nekk Khalifa Sall wala na nekk Macky Sall loolu yoonu ne France am nekku ci xam nga France lu ko intéressé mooy camp bi na gagné. bu ñu demee ba solution bi gis ni kii moo gën ci camp bi dem ñu ñu ñu ne ko demal nekk. suñu candidat suñu suivre conférence Ousmane Sonko arrangé wu leen. képp ko bokk ci opposition radicale bi ñaari camp moo fi am camp bi nga xam ne dañu fee nekk ci intérêt seen seen seen jegeñaale ak ñoom seen bopp ak intérêt France jaay réew mi ak camp bi nga xam ne dañoo taxaw ne dañuy soppi lii nga xam ne depuis 1960 mi ngi fi mooy la camp bi ñu tuddee la camp radical te mën naa cee lim ku mel ni Ousmane Sonko man cee lim ku mel ni Mamadou Diallo Tekki lim ci ku mel ni euh, aujourd'hui Thierno Alassane Sall lim ci koo xam ku mel ni Barthélémy Diaz et cetera ci ñi gën a fës. ma leen di euh, xelal ñoom ñooñu que nañu boole seen doole nan dajaloo parce que camp euh, camp France ak ñi nga xam ne ci intérêt France la ñuy dox ak seen intérêt bopp ñiy jaay réew mi ñoom ñi ngi dajaloo te am nañ doole parce que dañoo am ndëgër laay kon nag maa ngi digal ñeneen ñi nga xam ne réew mi leen ñor autour de ku mën a doon ci ñoom duma lim kenn ci ñoom mën nañoo waxtaan seen biir ñu am. possibilité de def ay synergie pour boole son doole suñ ko deful lii ñu bëgg a nësër ci réew mi dana fi am parce que ku gis la xew ca Guinée xam ne mën naa am Sénégal bu ne ñu ne Guinée du Sénégal parce que Guinée lu fa xew mais képp kuy citoyen du monde xam nga ni Guinée Alpha Alpha Condé dafa ñàkk élection yi Cellou Dalein Diallo moo gagné ñëpp xam nañ ko parce que même PV yi ñu ko joxul photo na ko photo ko ca fan ko affiché photo ko tamit ca fan defee décompte de voix yi mu leer naan ñi mu joxe woon 32000 tablettes ñi nga xam ñoo ko nekkal foofa ñu foto ko mu jàll ñëpp jot ko ci àdduna bi xam ne moom Cellou Dalein Diallo moo gagné mais pourtant ba ko Yaya Jammeh defee may ñu ko sax mu joxe preuve Adama Baro. wanewul benn preuve ne moo gagné élection mais mais ak Gambie bokkul parce que ak Gambie dañ dañ ne Adama baro moo gagné Yaya Jammeh nangu ko ba si yàgg mu dellu ginnaaw de volte face ne nanguwuma ko. voilà xam nga xam te fële fële seni bi seni bi daf ne euh, Condé waa gagné. non doucement moo tax moo tax souvent dañuy. ko ñaari processus ñoo yem processus électoral. seni résultat yi résultat provisoire lay joxe. waaw mi ngi noonu. léegi seni bi résultat provisoire su ko joxee ba pare. Mhm. conseil constitutionnel mooy dëggal ay résultats. mooy joxe résultat définitif. ñu résultat définitif donc ñoom dañ ni conseil euh, constitutionnel bu Gambie du conseil constitutionnel. waa conseil constitutionnel Gambie du conseil constitutionnel bañ bëggee jëli Laurent boo tamit jële ko Côte d'Ivoire la ñu waxoon dañ ne conseil constitutionnel ba baaxul waa les conseil constitutionnel u euh, Sénégal bi ak bu Guinée bi ak bu code d'Ivoire bii nga xam ne mi ngi légaliser troisième mandat wu Ouattara te ñoom xam nañ ni mënta nekk candidat waa les conseil constitutionnel yooyu ñoom baax nañ dama ni CEDEAO syndicat de président la c'est un club de président yoo xam ne France moo nekk seen ginnaaw ñuy dajale alal ji di ko jox France di jaay suñuy licence de pêche ci ay prix yu ñàkk fayda xale yi daan dem ci géej gi di napp mënatuñoo napp parce que licence de pêche dañ koo jox ay bateau yu am doole ñuy def pêche industrielle ñun suñ pêche artisanale mënatuñoo jàpp ay jën ba xale yi jël risque di mbëkk di dem di deewi ci géej gi ak di dem di deewi ci désert bi buñ dee si waatee mhm. may mooy que ne moom muy contrôler le Sénégal muy contrôler Mali muy contrôler toute la sous-région ñoom nag am nañ seen camp dëkk réew mun ci dem am nañ seen camp sunu Sénégal gi nag seen camp président Macky Sall ak sa Seck ak ñu mel ne ñoom ñoo ne ci camp ba beneen camp bi nag ñoom dañoo tasaaroo te man gën naa ne tant que boolewuñ seen doole du ñu mën a dem jàg jàmmaarloo ak ñoom te ñoom ñun ñii nga xam ne gën nañ réew mi dañoo gën ñoom ñoo war a jël réew mi parce que nag ñun nekkuñu fi ci réew moo xam ni bu ñu añee duñu reer bu ñu di ñëwul dañuy fande wala ñu ngi gobar jaasi réew mu toll ci foofu xale yi amatunum xëy ku daan liggéey corona bi gën na laa rey sa liggéey ñàkk nga ko wala la nga daan am wàññeeku na réew mu mel noonu dañoo soxla une gouvernance éthique une gouvernance patriotique ba dossier yi nga xam ne nag ak IGE ak cour de comptes ak organes yi nga xam ñoom ñooy saytu alalu réew mi te jàpp ay nit fii Sénégal ne dañoo luubal alalu askan wi xaalis boobu lan ni ñoom nañ nañ taxaw ñu fippu encadrer le peuple sénégalais ñu jàmmaarloo ak président Macky Sall nguuram ak ñii mu àndal di tappale bu ko defee ñu jox euh, dossier yooyu tri euh, tribunal mu àtte ko waxuma ñu tëj kenn parce que tëj amaluñ njariñ parce que ñoo nekk ci jamonoy xiif xam nga lu ñu def ku yore suñuy milliards ñu nga guqi ko ñu dem xool immeuble ba fan la nekk ñu jaay ko dugal ko ci ci keesu réew mi. xool nga bu dee dangaa ngaa denc sunu alal ci paradis fiscaux ñu dem ca paradis fiscaux ya nga def xaalisu Sénégal ñu dem nangu ko bu ko defee buñ boolee milliards yooyu kenn xamul nu mu toll nag buñ boolee rapport yëpp buñ ko boolee nag xaalis boobu buñ ko investir benn xale dootul. waaw daam léegi dañuy dañuy dellusiwaat si gouvernement bi bàyyi naa la nga argumenté lu bëri euh, am na am na ñu bees ñu ci gis ñu ci mel ni Antoine Diome agent judiciaire si mu dugg dugg si boo xamante dafa jur coow mën nañ koy wax ah parce que am na ñu jàpp ne koo xamante ne depuis procès wu Karim Wade bi Khalifa Sall ñi ko suivre yëpp gis nañ ne taxawaay bi mu ci amoon ñu njorte ne bu ñëwee ministère de l' intérieur affaire du yomb pour opposant yi d' abord choix bi ñu porté ko gisee d'abord damay wax ni man Antoine Diome dama ko xam pourquoi parce que añandoo nañ ba tàyyi bi may def école normal supérieure di def formation nekk jàngalekat moom muy waajal di def ENAM wax dëgg yàlla dañ daan toogandoo sama néeg jënd sunu añ añ euh, mu am te soxnaam si mu muy sëyal tey euh, mu ngi dëkkoon ci même immeuble man mu ko fay fekk wax dëgg yàlla ba tey jii mu nekk soxnaam kon euh, xam naa ko xam soxnaam ñu presque bokk ay at dundandoo lu bari mais tey jii su ma ko doon digal parce que booba nag lañ gëj a gisee maa ngi moom xam naa fi nag poste yu mu fi occupé euh, am naa sama frère boo xam toujours danaan ma yow yaa ngi romb toujours comme da ngay dem direction solde agence judiciaire de l'État yaa ngi romb kon euh, euh, Antoine mais man booba lañ gëj a gisee man ak moom mais tey su ma ko doon digal. Mm-hmm. yi mu dugg d'abord man ca procès yooyu à l'époque dama doon wax ni c'est dommage que man ak moom toogatuñ di wax. mais man suñ doon toog comme nañ daan toogee di naan attaaye ak di añandoo dinaa ne ko Antoine lii bul ci dugg parce que réew mi ku fi def loo te def ëllëg dina am magistrat la tamit nag ah. non mais magistrat du tax ñu def loola lu teguwul ci yoon parce que nekku magistrat di def nam doon defee procès Khalifa Sall bi dafa ñaawoon ak ak Karim Wade bi pour xamama lu ma d'accord xama lu ma d'accord mhm. gis nga ñun fonctionnaire yi surtout fonctionnaire yi nag ci administration générale bi euh, ci haute bi dañoo defe ne seen carrière ak seen i intérêt war na leen a jaral ñu sacrifier lépp même seen même seen avenir parce que en réalité ñii ñu ko séqal ñoom léegi ñu ñàkk nguur gi te ñoom ay xale lañ dese nañ ay at man li ma gëm mooy comme ni ma ko doon waxee ci coowal euh, Mansour Faye bi ak Sonko ak euh, vraiment Euh, euh, ki nga xam ne moom moo doon génnee euh, video yi te nekk xaritu Sonko wax dëgg yàlla ko personne ne connaît. Mhm. d'ailleurs loolu moo doon yoon parce que magistrat kenn waru ko xam mais aujourd'hui am na une réputation Sénégal boo si rafetul pour magistrature bi parce que di dem di lëkkaloog ay politiciens di leen jàppale ci ay xeex di génne ay audio yooyu loolu du rôlu magistrat mais moom it loolu laa gëm ni moom ba muy nekk ci procès yooyu ñaari procès yooyu man gëm naa ne mi ngi doon jéem a xool carrière ak di seetlu neex président de la république ba aujourd'hui ñu naan magistrat bi gën a jege couple présidentiel bi moom la man jàpp naa ne loolu du woy rafet parce que je le connais c'est un c'est quelqu'un de brillant wax dëgg yàlla man li ma xam ci moom bu ñu daan discuter toujours euh, mooy que ne xam naa ne ku am xarañte la euh, dañ daan def ay débat yu ula et puis xam naa ne tamit ci ay diplôme yi nga xam moom la doon jàll aussi yu ci bari da ko doon jàll au ça veut dire que kon nit la koo xam ne man xam naa ni am na valeur intrinsèque waaw kon am na valeur nag man li ma gëm soxla nañ ko intérieur mooy euh, aujourd'hui dem ministère de l'intérieur comme moom nee nañ dafa jege président de la république et gis nañ li mu ko defal ci procès xalifa Sall ak Karim Wade man jàpp naa ne dañ koo yóbbu ministère de l'intérieur pour muy comploter pour Macky Sall loolu laa gëm mhm. loolu nag baaxul ci réew mi te moom loolu du rôlam magistrat yi nañ toog ci cours et tribunaux yi nañ toog ci structure yi nga xam moom lañ leen dénk pour l'intérêt du pays mais structure yi nga xam ne ay mbëkkante la ay politique foofu day yàq deru magistrat magistrature waruñu fa nekk. Mhm. man loolu laa gëm foofu du place su magistrat parce que ci histoire u Sénégal yaakaaruma ni ab magistrat mos na occuper station boobu. ñu ñëw ci place beneen ñu ñëw ci keneen keneen ku duggaat Omar Sarr. no Omar Sarr moom man li ma gëm mooy dañ koo def parce que ñoom. Euh, président Macky Sall ba ñu xoolee ne nangu la joxe datu élection locale yi parce que jàpp na ni gox yu bëri bu demee élection ci contexte bi mu nekk nii mun na ñàkk. léegi nag Omar Sarr dafa nekk zone Dagana bi te foofu zone ku ko xam xam ne zone stratégique la ci élection yi dafa am importance comme ni ko gox yëpp amee importance. maintenant foofu Matar Cissé la fa sampoon mu xeex ak moom mais Matar Cissé comme ñoom ñaar depuis coowu akili bi ba léegi ñëpp xam nañu ñoom ñaar laale nañ léegi Matar tamit ñi ngi koy jiiñ comme li ñuy jiiñ Mimi di ko jiiñ Aly Ngouille Ndiaye di ko jiiñ Omar Youm ñu ngi koy jiiñ ak Amadou Ba surtout Amadou Ba laa waroon a commencé sax hmm. moom lañ ko njëkk a jiiñ ne ñoom dañoo am ay ambition présidentielle pour wuutu hmm. président Macky Sall te gis nga nguuru euh, euh, caaxaan yépp ci àdduna bi boo leen gisee comme na nguuru firaw na meloon di ragal ku ko remplacer ba góor gu juddu mu rey la ñoom noonu lañ mel dañoo jàpp ne képp ku leen jege boo xoolee chaise bi sax mu ne xool na sama chaise bi dinaa ko rey donc loolu la président Macky Sall nekk fi mu toll nii loolu moo tax man li ma jàpp mooy ma euh, pour rey Matar Cissé pour dootu amati benn ambition loolu moo tax ñu andi Omar Sarr bu ko defee ni ko léegi élection local yaay nekk sunu candidat man li ma gëm mooy que ne c'est la même chose pour Aïssata Tall Sall. Mhm. bi ñu dugal c'est la même chose même su fekkee duggul ci gouvernement bi Abdoulaye Baldé maanaam moom dañ mi ngi ci seen biir actuellement. donc moom it pour neutraliser Sonko maanaam président Macky Sall actuellement day teg ay pion pour mën a dem élection locale parce que élection locale xam nga seen mandat jeex na actuellement kenn xamul date bi lu lu kenn mës a gis Sénégal et puis nit di ko seetaan et puis président Macky Sall wala tax ñun sénégalais ñu mel ne dañoo koy bàyyi muy décider lu ko neex du ni oui du ni non war nga nekk candidat non du ni oui du ni non mais mais mais déedéet déedéet du ma ne wii du ma ne non xoolal alors que constitution bi ah dañ koo war a tëggee noo xam ne dafa war a leer ci Sénégal yëpp bala ñoo dem élection. constitution bi leer na parce que dañu nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs. waaw léegi nag tubaab xam nga ne leer na voilà léegi leer na naññ. Mhm. kon léegi bu dee leer na naññ mu ñuy jiite ñun Sénégalais yi mais est-ce que Donald Trump ñeme naa toog mu nekk ko États-Unis mu ne non troisième mandat laay def du ma ni wii du ma ni non loolu waxu caaxaan la président Macky Sall de le fait que question bañ ko posé xamul doon réponse bi comme nam ko daan defee ana ya jiitu daa waroon a wax mais loolu du question parce que man mënatuma am troisième mandat mu leer waaye du ma ne wii du ma ne non mooy ma nga indi jiixi jaax te suñ réew mi kenn waru koo taal te la xew Côte d'Ivoire moom la bëgg a indi fii Sénégal loolu mooy dëgg parce que France bëggul ñi nga xam ne ñoom ñoo koy jàppale ci France Afrique bi parce que ñoom gëm nañ ne bu ñu ñàkkee seen i pion parce que France bis bu ñàkkee Côte d'Ivoire ñàkk Sénégal ñàkk Guinée de manière générale mu ñàkk laa sous-région day dellu nekk pays sous-développé. léegi léegi alalam li muy am lu ëpp. mi ngi koy jëlee ci colonie yi. Mhm. nga xam ne da leen a noot contrôler les secteurs secondaires et les secteurs tertiaires entreprises yi am doole yépp France lañ bokk. koom-koom bi mu koy expatrier ba nga xam dañuy am un taux de croissance boo xam ne c'est un taux de croissance extraverti. léegi léegi dama bëggoon nga rapidement si ñi nga xam ne dañuy njort ne dañoo bëgg a wutu Macky ndax am na chance ñooñu ku ci mel ni Amadou Ba Aliou Ngouille Ndiaye. non Amadou Ba. Hmm. man li ma gëm mooy. d'abord am na droit nekk candidat xam nga il faut que ñu xam ne nous sommes dans un régime. mais ndax actuellement opposition bi di mu configuré woo. non moom laa lay ne am na droit nekk candidat Macky Sall yaakaarul ne Amadou Ba day mais xam nga lu mu ko ragale Amadou Ba su nekkee candidat da koy wàññi. Mm-hmm. day wàññi dooleem. il faut que nit ñi mu leer président Macky Sall xam na ne bu Amadou Ba nekkee candidat Mimi Touré nekk candidat. Aly Ngouille Ndiaye Aly Ngouille nekk candidat pour donner trois exemples mais dañuy wàññi dooleem léegi même bu ñu gañewul ñoom. day gën a facilité pour l' opposition. ay carte contre Macky Sall mais ay carte contre Macky Sall la parce que Amadou Ba bu taxawee Parcelles Assainies naam ñu ngi koy xeex parce am na benn transhumant boo xam si fii ci Parcelles Assainies may nañ ko fi doole. mais euh, damaa bëgg wax ni ñoom en réalité euh, li muy daw mooy kaamam la bañ a mu wàññeeku parce que gars yi dañoo gëm ne bu ñu la génnee ci nguur gi. sa moyen yi nga yor ko si néew da koy ragal investir parce que soo ko investir dootoo yorati dara parce que Idriss Seck mi am na daan na yoratul dara moo tax mu dem asaaloo boppam nee nañ wàcc waaw gars yi nee nañ dafa wàcc kay parce que loolu am na ñuy jiñ ñu koy jiñ ni looloo tax mu dem asaaloo boppam mais dama la bëggoon ne la Amadou Ba dafa am droit nekk candidat mais président Macky Sall ñoom ñooñu bu ñu baree émiettement de voix bu amee ci camp mhm. pour mu dem deuxième tour day yomb te bu demee deuxième tour dañ koy gagné te man gën naa ne mhm. président Macky Sall mhm. ba euh, ci ñaari hypothèse yooyu ma fa joxe sànq bu ma doon xool man bi ma ciy gëm tey en attendant parce que nee naa li ma gëm mooy pour ma wax man ban laa gëm ci ñaari hypothèse yi mooy ndax day dem wuti troisième mandat wala ndax day yekkal yàkkal Idrissa Seck euh, nguur gi pour koñe candidat yi yi jóge ci opposition radicale bi comme Sonko. Hmm. bala maa gëm ni bii la ci wala bee la il faut ñu dawal quelques mois ba ma xool. bu ñu dawalee quelques mois ma gis ne ñu ngi koy raay raayal ñu ngi koy hmm. negg neggal moom moom moom Idrissa Seck di ko negg neggal. Hmm. dinaa ne ah gars yi nag ñu ngi préparé Idi. waaye bu ñu ko commencé tuuti nga dégg second couteau yi mooy wuyaa wuyaa yi wër Macky la commencé attaque Idrissa Seck bu boobaa naa ne gars yi préparé leen pour ñu xeex ak Macky Sall ngi waaj. Mhm. troisième mandat léegi léegi dañuy dañuy jeexalee jotaay bi yow eh, bokk nga ci benn rassemblement boo xam ne dañuy woote benn marche boo xam ne dañu ko war a amal fële ca place de la nation pour ñaawlu kaddu yi nga xam ne Emmanuel Macron yëkkati na ko ngeen di sàkku képp koo xam ne jullit nga nga teew fa. effectivement euh, jullitu Sénégal yi dañoo dajaloo. pour la première fois nag depuis euh, le conseil supérieur islamique euh, gis nañ ni association yi yëngatu ci diine yépp dajaloo nañ ca grande mosquée ñu waxtaan suñu biir ku nekk wax li mu xalaat ñu dajale muy imaam yeeg association euh, jigéen ñi association góor ñi képp kuy yëngatu ci diine daara yi ñépp fekke ku ci nekk nga ñëw taxaw ñu ni ñun tooñ nañ tooñ nañ sunu yonent salaal alayhi wasallam mi nga xam ñun ñëpp moom lañ yaakaar léegi nag tooñ gi jéggi na day wax parce que ñun amuñu lu dul yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ne nag lii mënuñu koo bàyyi mu jàll ñun Sénégal dañuy taxaw bokk ci xeex bi taxaw def ci liñ ci war a def ñu ni nañ dajale jullit dajale jullit yépp ca place de l'obélisque bu samedi jotee incha allah juróom-ñaari fan ci weer wii nu nekk ñu ne nag képp kuy jullit te nga gëm lii ñu def yonent bi sallallahu alayhi wasallam naqari na la woo nañ la nga ñëw rek taxaw xam ne yonent bi rek lañu am amuñu leneen beneen bi nag mooy dañoo bëgg a dajale la mu gàtt gàtt benn million ci ay jullit yuy taxaw won Macron ni ko yow ab président franc maçon bu mel ni yow président homosexuel bu mel ni yow président Macron tuuti nga ci di jéem a tuutal euh, dayob sunu yonent bi nga xam ne ñun moom lañ gëm parce que képp kuy jullit te doo julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sëñ matul kon nag ñun bu laalee kooku mooy dafa laal sunu sunu foi dafa laal suñu ngëm-ngëm te ñun nag du ñu seetaan kenn di xotti war ma yont bi sallallahu alayhi donc loolu moo tax dinañ euh, def sunu rassemblement incha allah daan ko yëgle ba noppi daañ def invitation njiitu réew mi dañ koo defal carton d'invitation spéciale moom rek lañ ko defal ñi def ñëpp dañ leen a woo mais moom kese président Macky Sall lañ defal carton d'invitation boo xam si dañ ko ko yóbbul ca palais ba invité ko pour mu ñëw bokk ci sàppe yi ci kanam comme nam ko defe woon ba mu demee ca marche France ba ca Charlie Hebdo peuple france woo ko fa ne ko kaay marche mu ñëw ànd ak ñoom di marche kon nag tey sénégalais yi ñoo ko woo jullit yi ñoo ko woo moom président Macky sàll pour que mu ñëw ànd ak ñun ci marche bi taxaw ca sàppe njëkk ya comme nam ko defee woon France ca marche Charlie Hebdo ba bu ko defee mu wone ni ñun ñii ñëpp ñun ay jullit metti nañu parce que ñun jàpp nañ ni jullit la te képp kuy jullit lii ñu def yont bi sallallahu alayhi wasallam na la kon nag ñu ngi koy woo moom président Macky Sall pour mu ñëw fekkee marche que mu ñëw rapidement en quelques secondes rek quelques secondes kenn du invité Dame ba dem taxaw si wàllum njàng meex njàngale mi xam naa am nga déception bi Mamadou Talla daal di daal di toogaate ci fi mu fi ko nekkoon juste quelques secondes rek parce que temps bi jeex na. effectivement kooku moom xam nga wax waxoon naa fii ni ndonde bu ñu daakaande la kooku nga xam ne wax dëgg yàlla deful dindiwul. coow li bari débat de débat de personne bi. du que ndonde bu ñu daakaande bu ma ko waxee mooy koo xam maanaam danay dégg rek danay danay dégg rek fi mu ne dégg maanaam maanaam kooku c'est important parce que bu ñu la joxee ab département bu toll ni éducation da ngaa war a doxal waaye Mamadou Talla deful dindiwul xeexul attewul te man li ma jàpp mooy aujourd'hui dama la jox rek benn exemple bi nga xam si sax ci ñàkk fayda yi la doon yoo xam waroon na ko mën a régler mooy coowal école privée yi ak parents d'élèves yi école privée yi dañ ni parents d'élèves yi dañ leen di fay mois euh, d'avril ak mais muy ñaari weer yoo xam si kenn jàngul seen i doom nga woon ci kër ga école privée yi nag bu ñu waxee loolu euh, parents d'élèves neen ñun fay ñu ko parce que suñuy doom jàngul ñu jàngalu leen leen bañ leen di fay école privée yi ni par force da ngeen di fay wala seen doom duñ inscrire xam nga loolu coow la ci ñaari parti yoo xam ne yow état yaa leen yilif ministre de l'éducation nationale moo war a àtte mais doo dégg mu àtte te actuellement parents d'élèves tey jii rek léegi nii ci suba bala maa ñëw ci seen émission bi benn parent d'élève woon na ma ni ma ñoo ngi nii inspection académie bu Dakar doon déposer suñuy lettre pour wax ne suñuy doom la école joor bëgg a dàq te ñun suñuy doom faye luñ leen ñaari weer yi ñuy laaj parce que jànguñu ko woon léegi nag ñi ngi demandé ministre bi na àtte mais ministre Mamadou Talla du àtte parce que moom lépp lu ñëw ci ministère bi day tendeefal léegi nag ministre bu mel noonu ñun soxlawuñ ko moo tax ñu bëgg ñu am ministre boo xam ni du ministre bu wuyaa wuyaa ministre boo xam si bu waree jël décision da koy jël. mais neen yéen tamit da ngeen jafe jiite ah parce que ku ñëw ngeen du moom daam ku ñëw ngeen ne du moom. kañ ngeen di kañ ngeen di. nangu ànd ak seen non maanaam ministre yu wax dëgg yàlla fa Moustapha Sonan wax dëgg yàlla ñëpp seetlu na ngeen tàgg ministre bi dama la Moustapha Moustapha Sonan kay bi mu fi nekk ministre kenn déggul coow li metti lool. Mm. parce que dañoo jàppoon ne Sonan wax dëgg yàlla benn am na xam-xam bi beneen bi mooy am na dal gi beneen bi mooy am na xalaat bi mais nag yow bu fekkente ne ministre nga boo xam da ngay tëñax tëñaxi li tubaab di tuddee pilotage à vue xamoo fooy taxaw bala maa dem nga dëkku muy def discours aérien boobu naan il faut un climat apaisé apaisé mooy nga régler problème mu jàngalekat yi ñun aujourd'hui yaa ngi mënut ñoo jot seen i acte d'avancement seen acte d'intégration seen acte de ba mooy coow li seen acte yooyu bu ñu ko jotee bu ñu demee ministère des finances day sàcc seen xaalis cay impôt ne daan dañ koy impôt muy sur imposition yu métti yoo xam ni bu dee da ngaa war a jot ñaari ñu jël benn million bi téye ba noppee daa daat jox benn million bi te bu ñu la naan la am te bu ko laal mais loolu nag wax dëgg yàlla ñun bu ñu koy dund ba noppi ñu niy bodd ci ni ñuy fayee liggéeykatu nguur gi ñun leen nañ ko càmbar ñu càmbar ko ba euh, cabinet ba ko def ni jaay nañ ci doole jàngalekat yi ak médecins yeeg ñu mel na ñoom ñu ne daañ ko toog waxtaanee pour tiiri ko jaarale ko yoon ku ci nekk li ci sa àq ak sa yelleef ñu jox la ko loolu ñu xañ ñu ko ba nopp bëgg ni jàmm day am Mamadou Talla moo la gën a xam ne jàmm du am bu bëggee jàmm am lim déggoog ñun na ko def te jàngalekat yéen formé te kenn affecté wu leen ñu affecté leen parce que 2013 ba léegi am na ay enseignants chômeurs pour la première fois président Macky Sall moo fa nekk premier président en exercice bu am ay enseignants chômeurs yore seen i diplôme na leen affecté nu mu gën a gaawee mooy la promotion 2013. ensuite fa lay daaneele. jàngalekat yi nekk dans les écoles sénégalaises de Banjul parce que ñu bëri li ñu xamul mooy Sénégal am na ay écoles Banjul mooy Gambie. Mm-hmm. am na fa école primaire a na fa école euh, euh, collège am na fa lycée. Mm-hmm. ñoom ñett yooyu yëpp ñoo bokk benn bloc. di def ay résultats yu baax jàngalekat ya nekk jàngalekat yu góorgóorlu yu xarañ mais ñu teg leen ci réewu jàmbur di leen exploiter di leen jox salaire yu wuuteeg salaire yi ni fay Sénégal jàngalekat yi te ñoom ay sénégalais lañ. Mhm. di jàngale ci école yu Sénégal moom loolu amuñu benn statut kenn mënta avancer salaire bu ñu yoree moom lañ leen di fay ba ba ñuy jël retraite te kenn du ci avancé kenn du ci am statut loolu dafa war a dakk te looloot bokk na ci tendeefal bi Mamadou Talla di tendeefal ndax yëg na ko ndax dañ leen a rattaché à l'IA de Kaolack IA de ak euh, euh, ministère dem nañ fa def mission comme man mii dem naa fa mission dem déglu jàngalekat yi à à Banjul li ñu bëgg mooy loolu nañ ko dakkal jàngalekat yi ñu defal leen statut bu leer. ba noppi jox leen salaire yi mérité bàyyi seen bopp di compte bi ak jaay doole bi parce que sénégalais lañ comme tout le monde surtout dañoo nekk dans un territoire étranger. jërëjëf euh, Dame moom chaque fois rek bu ñu sekki moom ak waxtaan euh, dama naan sax temps bi ñu am bu ñu matee ndax euh, li muy li muy déborder dafa li muy aborder dafay bëri dafay am solo tamit ma bàyyi la nga tàggatoo juste quelques secondes. mais jërëjëf sëñ Moustapha di kontaan di. Euh, nuyu vraiment encore une fois internautes yi ba noppi di euh, nuyu jàngalekat yëpp di leen di leen wax na ñu ngi jëm ci année bu metti sànq dugguma ci mooy classe intermédiaire yi nga xam toog nañ juróom-ñetti weer jànguñu. Mhm. te tey jii dina metti lool ci ñoom mais yërëm naa leen ci mais ñu xam ne rek ñun wax dëgg yàlla euh, suñu liggéey nañ ko def liñ ci war a def. tamit alerte liñ ci war a def ñu leen di ñaanal at mu dal parce que leer nañ ni dina metti lool ci ñoom mais ñu ngi ñaan yàlla jàppale leen ci liggéey bi. waaw ñu koy jaajëfal bu baax a baax Dame Mbodj la moom moo jiite CUSEMS authentique ci invitation bu ñu nangul gis ngeen ko à chaque fois bu ñu ko invité nii lay demee ay débat yu am solo la ñuy yëkkati damay wax faral di wax sax ni temps bi ñuy am du ko matee tellement que bi dafay intéressant mbokk yi ñu doon suivre yéen ngi leen di jaajëfal jaww fara moo nekkoon ci caméra yi yoon incha allah.